peuple sénégalais c'était dëgg la nañ dox ci dëgg bi nañ appliqué dëgg bi tey mais mais xam nga lan lañu waxtaani xam xam nga lan mooy lan mooy problème lan mooy problème bu dee bu dee bu dee euh, yow di bokk gis-gis nga bokk il y a six mois nekk woon Benno Bokk Yaakaar non dama ne la ci say acte oui déglu ma rek tey jii nii yow yaay défendre. oui mais déglu ma il y a six mois. oui yow mënoo ko woon défendre. non mënu ma woon non a non non il y a six mois tu étais dans l' opposition. il y six mois je disais. non dama il y a non non non non. déedéet dafa ma déglu non dafa ma man 2012 déedéet dafa ma wuyu man man Bouba fii kii fu mu taxaw. oui ah avant Macky Sall di fu mu taxaw. taxaw naa fa. loolu laa wax. dégg déggoo ma ne la. c'est vrai loolu laa wax te wuyu ma nekkuma ci plateau télé. dégg li mu ma. loolu laa wax man léegi dama ni la non dama ne la am am ah. Ah, tey jii dama ne la. ma ne yow. très mal placé pour me dire ça. parce que yow si y a six mois. oui opposant nga woon. oui tey jii nii. parce que tu as ah, mën nga wax mën nga kii yow yaay défendre APR ñu teg la ci kii bi. <laughs> doon lay def mais non dama ne. yaa si il y a six mois munoo woon wax li yow. oui parce que feneen nga bokkoon. Sénégalais yi voté la dafa wuyu ma Sénégalais yi la foog ni opposant la nga jël affaire yi dëpp ko. ban Sénégal moo voté déggoo li ma la wax. ban Sénégal yow mën campagne yaag yow ba ngay campagne yaag benn bokk euh, bokk gis-gis. oui opposition ngeen nekkoon. oui. ah oui ba affaire bi kii ngeen tuur ko fee dem ci mouvance présidentielle. oui yow tu es mal placé pour. pourquoi parce que parce que am dëgg attention man man xoolal man xam nga tu sais pourquoi je suis après soo ragal ñu ma lay ko ma dara dara bo xoolal xam nga man xam nga ma ragal xam nga la may dara ñu ma dara personne xam nga lan mooy sama problème personne n'est au-dessus de la loi xam nga lan mooy fi nekkul ci yoon xam nga lan mooy sama xam nga lan mooy sama xam nga lan mooy xam nga sama problème sama problème lan mooy lan mooy lan mooy que tëb ak weesu la ma xalaat. waaw ah waaw. yow ak keneen. perception bu nit di am. waaw sama yoon nekk. yëkkati yëkkati yëkkati beneen loxo bi yëkkati beneen loxo bi nga mu neex loolu naka la. faale wu non sama bopp laa wax. non sama bopp laa wax. voilà voilà sa yoon nekk nga wax nit ñi tam li ngay xalaat seen yoon nekk non tant qu'on est en débat. xam nga sànq la tant qu'on est en débat. non non mais moom moo ma interpellé. yow laa interpellé parce que yaa interpellé yow yaa nga ma suivre 2012 ba léegi yaa nga ma suivre avant boobu kañ fan laa nekk man sama activité politique 2012 loo ko waxuma politique yaa ko wax waxuma politique yaa ne 2012 dama fi nekkoon naan waat waat 2012 kan moo ma gis ci plateau Sénégal yi 2011 dama 2011 ma ni da nga ma daan gis ci plateau wax 2011 génn déggoo li ma la wax bañ comme tout le Sénégal et si c'est à refaire dama koy campagne contre lamb bu wax ko troisième mandat la wax noonu rek loolu nag les mêmes vérités ñuy ñëwaat dëgg mooy dëgg booy booy dama ne ku tooñ ci réew foo mun ci bokk koo mun ci doon yoon daa war a teg sooy. waaw nga tudd Moussa nga tudd Mame Baye. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga attendez attendez moom mon problème ne se situe pas là. l'enquête bi s'il te plaît doo xaar mu pare oui ma doo xaar mu pare doo xaar mu pare. bàyyi ko mu s'il te plaît. sur cette question là na leer nañ am na sénégalais bu ji ab sénégalais suñ vingt neuf milliards. waa ji ne li muy wax dara amu ci. porte plainte nañ dem ci yoon. waa léegi leneen démarche bu waay def. Mhm. waxi leneen. waa léegi waa léegi moom lii mooy lii yoon. xam nga moom foofu la taxaw. waaw. fi nga taxaw moi je te cite quelques passages du livre.